te damay faral di wax ne fi jamono toll ci waxtaan ak waxtaane mag ñu baax ñi mooy di indi lu wér loo xam ne danañ ci mën a jariñu ndax Cheikh Ibra Fall mas na wax Baye Ibrahima Thiam ñoom ne leen su ngeen ne ni yaaram lu ma wax da koy bind kon jamono dafa tollu ci bu ñu bëggee delluwaat ci njàngale mag ña bëgg a gëstuwaat mag ña faw ñuy denc wala ñu dem ci tuxal la mag ña denc ñu di ca tuxale ndax dafa am lool boo ko bëggee waxtaanee te gëstuwoo wala itam demoo ci ña fekke woon ñu nettali la ndax ñu baax ñooñu ku ci mel ne Cheikh Ibrahima Fall Serigne Saliou rakkam ji daanaka mën naa leen bind ñu leen ciy téere boo déggee ma wax loolu nag mooy daawuñu bind te loola xam naa la ko gën a sabab bàyyi Cheikh Mbaye yaaram mas naa maa wax ne ma euh, Cheikh Cheikh Modou Fatma Fall de nee na ma toog naa fi Cheikh Ibrahima Fall sa bàyyi fekk ma fa. man nag lu ma leen wax ci Cheikh Ibra Fall wala ma wax leen ko ci sëñ Saliou Fall ku fekke jamonoy sëñ Saliou sëñ Saliou yar ko moom ma koy wax wala ku fekke jamonoy Cheikh Ibra Cheikh Ibra yar ko moo ma koy wax wala koo xam ne bàyyam daa fekk sama digganteeg Cheikh Ibra wala sëñ Saliou Fall daal du sori moom kenn na cay dox mu ne ma sama bàyyi nee na mën a leen wala moom sëñ Saliou wala Cheikh Ibra nee na mën a leen nee na ma toog naa fi kanamu Cheikh Ibra sa baay fekk ma fa wala ko wax ma dégg mu naan ko yaaram mu ne ko Fall mu ne ko yaa ngi Mor Talla moom ak Masamba Ndiaye wàq dégg naa da ngeen di woy mooy taalif yi ñuy def sëñ Mor taalif lu bari loola sëñ Fall ñoom danañ ci xam dara ndax seen wayjur wii sëñ Mor moo ko yoroon loolu sëñ Dame moo ko waxal boppam nee na mu ne ko yaag Mor Talla moom ak Masamba Ndiaye wàq dégg naa dangeen di woy sëñ Mor sëñ nee na sëñ yaaram ne ko waaw mu ne ko Cheikh ba na ko ah baleen ko doom. ba leen ko yaaram mu ne ko faal mu ne ko jamono ji sëñ bàmba ne dee su fa wane xam-xam ndax sëñ bàmba kan doom day defar di génn may defar di denc waaw defar di denc bu fekkoon ne tey sañ nañoo wax ci sëñ Saaliwu Fall loo xam ne daa bokk ci waxtaani biir nekk ngeen xam ne sëñ bàmba la seera Fall waxoon day defar di génn may defar di denc ndax Cheikh Ibrahima waxal boppam ne Saaliw bokkut ci aadama ak awa maa la wax loolu man mii taxaw fii maa ko wax waaw nee na Saliou doom mag la te Baye Naar Fall de mas na maa wax ne ma loolu diggante sëñ Saliou Fall ak Sam Xuruf la xam naa day am yooyu moom bu yóbbu ñu di ko teggi ba sëñ Saliou ba sëñ ñëw dana ci am lu mu ciy leeral waaye pour wane ne Cheikh Ibra Fall kon kenn xamul lu mu doon ndax nee na nee na sëñ Saliou Fall mag la doom bokku ci de maa la wax loolu. kon la Cheikh Ibra Fall waxoon ne day defar di génn may defar di denc loolu moo leen lool waaye nag ñoom xam leen yombul ndax kenn du leen boole ci nit ñi déedéet da nga leen di ber maam Seynabou Ndiaye ba tey mag ñi nee nañ ma daana xëy dem ci ku tedd ki ko baleel kër ga di root ndaaya di raxasaayu di ñaq comme ni maam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Saliou Fall daan defal ku tedd ki kon daal Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Saliou ñoom niñ tërbiyaa Serigne Touba noonu la seen wajur wu jigéen tërbiyaa Serigne Touba waaye sëñ Abdou sa baay moo ma ne sëñ Modou laay sëñ Touba mosu koo sàllawlu déedéet seen wayjur wa di maam Seynabou Ndiaye su ko daan woo sama ndey bu njaay la ko daan wax danaa ci nettali benn xissa bu siiw sëñ Touba mas na ko ne ci njaareem yow sama ndey bu njaay bu ëllëgee yomal xiyaam suñ la dee woo ca pénc ma nan ngay xam ne yow lañuy woo mu ne teg sëñ tubaa ne ko yomal xiyaam diw amu fa doomi diw amu fa buñ dee woote ca pénc ba dañ naan ana ki nangam. waaw ay na ahlul ma moo fa am waaye amul diw de amul doomu diw waaw maam Seyni bu Njaay na tekk ba mu yàgg ronga ñuy sottiku Sëriñ Tuubaa ne ko kër boo déggee ëllëg ñu ne ànd ndey kii xettali jaam ñi jógal wu ji xam ne ñoo la ñuy woo moo tax sëñ Moussa Ka ne ko saw ŋàññ rot na yaa texe saw ŋàññ rot na yaa texe nag li ko sabab sëñ Moussa ko wax ko ko la xewoon njare démb la woon ndax nag na ngeen bàyyi xel ne keroog bi Cheikh Ibra Fall topp jeeku tedd ki Serigne Saliou Fall topp ca waa njare gépp dañ ne bu Njaay day nee nañ am na ngërëmal yàlla am na ngërëmal borom këram waaye jaaxal nanu ndax jur na ñaari ponkal kenn ki dem ba doon wax mbaane dof booba seera la ñuy wax lii may wax Baye Mbàkke Njaay Abdou Socé moo nu ko wax Seynabu Njaay da jaaxal nanu ndax nee nañ am na ngërëmal yàlla am na ngërëmal borom këram waaye li ñu jaaxal ci moom mooy jur na ñaari ponkal kenn ki dem ba doon waxambaane dof ki si des tamit daa lu mun ta wax kon ngërëmal yàlla am li fu mu ko jaar baat bi ñuy wax yoolum geño sëñ Abdou Assis baat boobu sa maam sëy na bu njaay lañ ko daan wooye ca njare maa la wax loolu waaye sëñ tubaa loolu la ko fayee am na beneen bu doy kéemtaan bu ko sëriñ baa wax ma ngi ko ko waxee ci kanamu maam Assou Diop histoire mi ngi bàyyi ko ci maam Assou Diop nee na dañoo jëli yére ku tedd ki indi ko ci kër gi di ko fóot biñ ko fóotee ba noppi jël ay addiya toftal ci nee na ñu ëmb ko maag sama ndey maam Assou Diop wax de nee na ñu ëmb ko nee na biñ ko ëmbee nee na yóbbul ku tedd ki ñi ngi fekk sëñ bi ne ci tombam yooyu mu daan def di tomb nee di tomb ba mu yàgg sigg na ko sunu ndey waaw maam Astou nee na ku tedd ki sigg na saa ndey Seynabou njaay sunu ndey maam Seynabou Ndiaye sëgg jël bopp jëmam bi teg ko ci suuf na ko mbàkki duñ say ndey say jaam képp lan nee na borom Tuubaa na ko xanaa xamoo ne yomal xiyaam ñaar képp nga fa gis te kenn ki yaay ndeyam kooku mooy wayjuru Serigne Saliou Fall Darou Khafor pibis bi da boole Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall te kenn la ndax sëñ moor Diarra mooy sëriñ Touba Cheikh Ibrahima Fall mooy Serigne Saliou Fall loolu leer na kon nag noo ngi sant bu baax tey gërëm xam naa dafa am lu ma bëggoon a fàttali sëñ bi boo ma ko mayee lu gàtt euh, xam nga sëriñ Ibnu Amar daf bokkoon ci bëkki néegi ku tedd ki pour wax rek ne da daan wax ne. moom sëñ sëñ bi da ko da yoroon ci kër gi waaye nee na kuñ masaana yónni ci Cheikh Ibra Fall da ngay bëgg te loolu maa ngi koy fàttaliku jamonoy sëñ Modou Aminta bëkk néeg bu sëñ Saliou mas a yónni ci sëñ Modou Aminta di ko jox ndigal boo ñëwee neexal bi moom mi ngi tege sëñ Badaa ngi ni toog loolu moom dana ko mën a seede sëñ Modou Aminta moom boo masaan ñëw ne ko sëñ Saliou nee na nangam da lay neexal ndax ndigal li nga ko yut moo tax ñu ko daan wooye nangu ndigal kon kër Cheikh Ibra loolu lañ leen xamee sëñ Ibnu Amar nee na sëñ Touba moo ma ne Ibnu demal wol ma Ibra Faal sëñ Ibnu nee na ma génn samp sama xel ndax nee na damaa bég nee na mbégte mu njëkk mi ma njëkk am mooy xam naa ne mag ñiy toog ci kër gi yëpp sëñ Touba yónni leen leen fi baax kon su ma sëñ Touba tànnee yónni ma loolu mbégte la ci man nee na ñaareelu mbégte mi ci desit mooy xam naa Cheikh Ibrahima Fall xam goo xam ne xër na ci sëñ Touba xër goo xam ne noppam képp bu ci sëñ Touba duggee na man danaa la neexal moom nee ma daal di boori ñaari mbégte yooyu nee na ma daal di daw nee bi ma ñëwee màkk looy looy laa ko fekk ci kees bi nee na ma mu toog ci genn taatu garab mu am na ñu toog ndax daraan kuréel lañ daan def xam nga Cheikh Ibra amul la waaw du fi xaj mais beneen yoon danaa nettali li tax ma wax ko nee bu daa toogaan kuréel dañ daan def nii wër bu waxee ñii ba mu yàgg seize coiffeur la daan toog seize yi were nga ko nii bu waxee ak ñii ba mu yàgg mu toog wax ak ñee wax ak ñee sëñ Ibnu nee na maa ngi toog maa ngi ñëw nuyu ko mu ne ma kii kan la ma ne ko mën a Ibnu mu ne ma Ibnu Amar naar bi ma ne ko waaw mu ne maa ah, doom looy dox mën ne ko sëñ Bamba de ma yónni ku tedd ki nee nga ñëw wuyu ko nee na bi ma ko waxee loolu maam Cheikh daal deet fudd waaw gis nga bu ma masaana jël ñaari loxo mi fasta ko ci kaw xamal la yéeg na daan na gees na ana yaaram mbay ñu ne faal mun a neexal leen imnu daa ñu ne ñu tàmbali kay nee teraanga jeeg xaalis baag lu waaye yor sànni na ma ko keroog nee na may dajale mun a bërët na ma gees na ma imnu nga ne lan mu ne ko faal kaay wuy sëñ bamba mu ne waat gees na ana yaaram ñu ne faal mu ne neexal leen imnu daal di aw yoon wa nee na mbooloo mi topp ko bàyyi mun nu faal njang anta toob yor setale gi dend ak moom noonu nee na ñuy dox ba mu yàgg ne maam Cheikh ngi dox mbooloo maa ngi dox ba mu yàgg mun a jusub ci digg àll bi taxaw mooy diggante ndunk foofu mu daan jaar daan na gees na waaw doom ana imnu nee na fekk maa ngi ca gannaaw mbooloo ma nee nu woo ma ñëw ba jege ko mu ne ma imnu nga ne lan ma ne ko dama ne wu sëñ bamba mun a gees na ana yaaram mbay ñu ne faal mun a mën a neexal leen imnu nee na ñu neexal fi ma taxaw nee na maam Cheikh di dox mbooloo mi topp ko ñëw ba ci buntu kër gu mag gi nee na seera na gees na ana yaaram mbay ñu ne ko faal mu ne kaay wuy sëñ bàmba doom sangu farataa ci waroon ndax bànneex bi muy def ci góor de benn bànneex ñaareelu ko kii bànneexee turu sëñ Tuubaa nee na ba sangu farata war ko ci bokkut ak ku yàlla bind ci kuy taxaw ci kaw suuf kon nag noo ngi sant tey delloowaat ci ak taalibe te xam ne moo ñuy jariñ lu waaye mën a wax mooy ak taalibe bi mooy jëriñu fii mooy jëriñu fañ jëm ñoo ngi ñaan yàlla di ñaan ci barkeb jotaay bii ci barkeb ki ñuy ñi ñu fiy fàttaliku ñëpp ci barkeb sëñ moor jaara mi nga xam ne moo ku tedd ki Cheikhul Khadim ñoo bokk lépp barkeb Serigne Saliou Fall mi nga xam ne moo maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo bokk lépp yàlla na yàlla faj sunuy aajo yàlla na yàlla suturaal ñu yàlla na yàlla defal ñu ay xéewal yàlla na yàlla defal ñu gudd fan